muy sëriñ Saliou Samb di kenn ci njabootu Serigne Touba gi eh, di borom xam-xam tey jii nag ñu teew fii ci Parcelles Assainies ci bisu ñaanu Serigne Ndiaga Diop Baye Fall eh, yàlla dogal nag mu waroon fee yëkkati ay kaddu eh, di kaddu yu seede ak kaddu yu soññee ci jëmm ji nga xam ne moo fi jóge muy monument di liggéeykatu Serigne Touba ak la mu war ñu cee tegtal lu bari nag war cee indi ay kaddu yu seede yoo xamante nii ah ci digganteem ak moom lay doon ak digganteem ak njaboot gi ak digganteem ak eh, lislaam bépp kon sëñ Saliou dañ lay jox kàddu gi rek nga yaatal ci loolu. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di feddali suñu kóolu téef Cheikh Amadou Bamba ak maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi leen nuyu di leen ziyaara di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàgg fi ak Serigne Cheikh jëmb kuy sol sa dal te lislaam tax laa jóg di leen ziyaara di leen di masawu di leen jaale sunu kilifa gi bàyyi koo fi sëriñ Ndiaga Diop Baye moom Serigne Cheikh Fall Baye góor muy dogalu yàlla bopp jàmm bu nekk war na koo xaar ndax sunu ñëw jamono yàlla dafa wax ni li tax mu njëkk a bind faatu door a bind dund. mooy régler ak ñun kenn ku nekk lan la doon jëf wala regle ak ñun kan moo gën a rafet ay jëf ci ñun waaw wax ne allazi xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum axsanu amala wa huwa al azizul xafur kon dee moo jiitu dund moom la sama borom njëkk a bind ci dund kon képp ku gane jamono rek moo lay nekk waaye li am solo mooy diggante gane jamono ak faatu diggante gane jamono ak faatu fi la ñuy liggéeyee li tax yàlla ni li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ma réglé ak yéen ana kan moo ci gën a sell ay jëf moo tax maam Cheikh Ibra mi nga xam ni moom la yaakaar moom la bàyyi Ndiaga yaakaaroon nu yaakaar ko mu waxoon ni tudd du tudd ab dëj la day door a tàmbali ci tudd muñ ko tuddloo woon moom maam Cheikh Ibra Euh, bi mu tuddee ba noppi bokk yi waxante am ku sar xolle maam Cheikh Ibra Fall wax ne ah doom kooku xamadi na di ab dëj nes ci sar xolle ñu ne ko daa mel ni Fall am tudd la mu ne da ngeen a juum da doom tudd dum tudd ab dëj la day door a tàmbali waxi maam Cheikh Ibra Fall jooju nag wolof la waaye soo jàngee alxuraan fekk ko ci li tax soo jàngee alxuraan fekk ko ci moom mooy yàlla bi mu waxee ni man maa leen di bind bàyyi leen ci biiru. mbindeef ni yéen ba bis ma yombal ngeen gën jamono tegu ci lu dul ma rey leen waaw moo wax ni xutilal insaanu ma akfarahu min ayi shay'in xalaqahu min nutfatin xalaqahu fa qadarahu summa sabila yasarahu summa amaatahu fa axbarahu loolu it jamono firil nanu ko ci saa su nekk ndax dinaa koy faral di wax lu gën a bari premier sorti doomu aadama ci mbooloo nit buy njëkk génn ci mbooloo ak buy mujj génn ci mbooloo ci ñun boo seetloo ñoo niroo buy njëkk a génn day génn cig laxasaay mbooloo mi di ko nekk ñu dem ca këñu wóolu mu noddu li xaam te jàkka yi buñ noddoo li dañuy kàbbar buy mujj a génn day génnaat ci laxasaay mbooloo ma di ko négaat ñu ñu dem këñu wóolu day ñëw kàbbar ndax noddoon nañ li xaam léegi nag boo calculé ci. temps normal bii ñuy dund nga xam ne mooy diggante temps ak espace diggante liqaam ak kàbbar ni mu gàtte nga calculer ko ci dunduk doomu aadama moom mooy nit ñi yàgguñu fi léeg am ku fi ne ba ñun sax ñu wax ni yàgg na fi sunum xalaat waaye fekk yàgguñu fi ci yàlla ndax yàlla wax na ni penc mi muy dajeeg ñun bëccëg boobu cinquante mille ans lay nekk waaye léegi koo xam ne benn bëccëgam cinquante mille ans lay nekk suñu cent ans matul deux heures de temps ci moom. te dafa wax ci suratu maarij ji taxarujul malaikatu wa ruuhu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sanatin cinquante mille ans benn bëccëg kon ñun yàgguñ fi moo tax maam Cheikh Rafal wax ni tudd du tudd ab dëj la day door a tàmbali wax ji day waxi wolof waaye alquran la ndax su ma sabila yasarahu su ma amaatahu fa axbarahu moo sopp léegi nag sëñ jaga mi nga xam ne moo ñu la fii moom xamoon na loolu ba tax na lim amoon ci saa muy ay waxtoom ak ak jotam def na ko li yàlla waxoon ni wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallahi lu ngeen jiital ci lu baax rek aw yiw da ko fekk ci seen borom moom dundam yépp lenn la woon mooy leeral mission bi fi sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibra indi rawatina maam Cheikh Ibra Fall mi nga xam ni daa mel ni ku naqaree layal moom nag mu doonoon mémoire ci moom te musta wax ci maam Cheikh Ibra Fall lu nit mën a teggi lu mu mës a wax ci maam Cheikh Fall moom Baye Ndiaga du lu nit mën a teggi fi saa si lu sax xel gàtt-gàtt di nga comprendre ni kon lii lii la te loolu rek moo ci am solo ndax dëgg ngi yam ci Cheikh Fall yaakaaroo ngi yam ci seex Fall wóor mu ngi yam ci Cheikh Fall dinaay wax gaa yi ni wóolu baax na waaye wóolu lu wóor a gën Cheikh Ibra Fall moom wóor na kon tey jii moom lay xam ni li mu wóolu woon wóor na waaw moom en personne soo ko xamee gis ko gis ni mu doon véhiculer message bi di nga xam ni kii fii mu nekk mooy fi Cheikh Ibra bëgg ku fi ne kon ñun dan buñ ko ñaanalee ba pare dañuy taasu ci barkeem nag ñaan yàlla sans borom mu taas ci barkeem ci barkeem maam Cheikh Ibra waaye li ñu mën a wax ci tënk mooy mémoire ci yoonu murit bàyyi ko fi waaw ab mémoire la si yoon wii nga xam ni moom la nekk yàlla na saa boroom tabal ko ci yërmandeem mhm. waaw sëñ Ndiaga gisatuñ ko ci saayir waaye sëñ Ndiaga demul jëf du suulu te li mu doon jëf mu ngi fi yàlla dogal na jamono bi ñu toll egsi nañ ci jamono nouvelle technologie foo xam ni lu waay mas a def rek mën nañ ko génnewaat kon kila jàngaloon démb mën na la jàngal tey jàngal la suba jàngal la ginnaaw suba waaw ki nga xam ni jëmmi sëñ njaga ak li muy jàngale moom mu fexe cee jariñu moo ko yitteel kooku mën na saa yu xëyee jariñu ci sañ njaga fii ba addunay tukki wala moom fii ba bu muy génn adduna moom parce que maa ngi leen di nuyu site bii tudd Sulamul Wusool rek donte yàggul li ci jot a dugg rek mën naa véhiculer kii véhiculer ndaw lu bëgg lu baax bëgg sëñ tubaak ak Cheikh mën na koo véhiculer addunaam ba mu jage ci alaxiraam jage ci li ci jot a dund rek li ci li ci jot a dugg doonte yàggul yàlla yegale ko fu ngeen xalaat nag ndax ndem ci xalaatam la sosoo moom sëñ Njaga yal na yàlla yegale ko fu ngeen xalaat ndax ku sos lu baax fii ak ñu ciy jariñu yàlla di la fay yonent bi def ni nit bu faatoo ay jëfam dagg na ba mu des ñett benn bi sa sadaxa jaariya la mooy sarax boo xam ni daa continuer lu mel ni gasub teen wala wutub yoon foo xam ne amul woon yoon xeet yooyu wala saxal garab nit ñi di ci keru loolu mooy li jëf yi des ci nit ci kaw suuf waaye wa wala ilmun yuntafamu bi wala xam-xam boo xam ni xamle nga ko ñu ciy jariñu kon sëñ Njaga am na sensu xamle xam-xam boo xam ni fii ba àdduna bi tukki mën nañ di ci jariñu te yonent bi nee na nit bu faatoo jëfam yi dagg na ba des ñett benn bi mooy xam-xam boobu benn bi mooy eh, sadaxa jaariya mooy gasub teen mbaa saxal garab ñu ci keru mbaa wut yoon fu amul woon yoon benn bi mooy wala dun saalihun yad'u lahu doom ju baax ju lay ñaana yàlla may na ko sens bi nag yàlla na sama borom mm, def ndawul ndawul lu jóg ngir xam lu te jaare ko ci yii mu fi bàyyi yàlla defal la ci dégg defal la ci topp waaye soppil ko ko aw yiw mu fekk ko fa mu ne ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi leen di jégalu bu baax bu fekkee am na lu dëng ci kàddu yi nun la bu jubee sëriñ bi la dañoo waaj woon wax ji nag ndax dañ doon jaale si rek